dees na ko ca bindal tuyaaba ju bari te des na ko jéggal bàkkaaram yépp bu nekkoon ci njàqare it yàlla suñu boroom dana wuññi njàqare la te dana ko wàccu ci balaa àdduna ak alaaxira dana wañ dana ci moom yërmandeem te buy tàbbi àjjana dana bokk ci ñi njëkk dugg ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ku ci bëgg yeneen leeral da dellu ci xurratu ayni bu Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke page 147 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi